mu ne loolu ak sant la mu ne ndax li mu fi bawoon ba léegi dafa yokk waaye wàññeekuwut ci ci ay ci ñëpp ay doomam lañ ci loolu buy am ay doomam lañ ndax lam leen santoon ci jaamu yàlla nangoo liggéey nangoo jàng nangoo jàngale ci loolu lañu sax ba léegi ndax ajuma ju jot danañu fi daje def xadara xadara lu am solo la te góor gi it moo leen ko baye woon ba mu leen ko bayee ba léegi da ba bàyyiwuñu ko fuñ toll ñu ngi ci rek de continuer rek waaye dellu luñ ko gannaaw mu ne oustaz Mahmoud wax ji nga wax doy na sant yàlla ndax boo ne jàng ak jàngale ak liggéey ak yar ak njabootam ci la loolu ci la saxoon ndax loole ku ci sax am nga yaakaar ajana mu ne yaakaar ajana nag mu ci jëf mu ngi ci jëf jëf mooy tax nit de yaakaar ajana mu ne mu ne loolu ñu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax mu ne ustaas mi ba tey ñu ngi lay sant di la gërëm ndax am nga orma am nga orma kat ndax bi mu fi góor gi bàyyeekoo ba léegi lislaam ji nga nekke woon ak moom wàññiwuloo ko fa nga ko yokk ndax képp ku fi dikk yow la fi fekk li mu fi war a dox yaa koy dox liñ fi war a wax yaa koy wax te itam yaa ngi taxaw ci njaboot gi di leen digal lu baax di leen digal lu baax mu ne loolu moo tax ma ne am nga orma ñu ngi lay sant di la gërëm mun taxaa saaxo nag yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na yàlla may ko fan wu gudd yàlla na barke ndaxte ndax lim jàng xatmu gim jàng fii tey ni mu ko jàngee rafet na de wallaahi rafet na loolu rek mën naay tax mbooloo mi fi teew yëpp yàlla dugal leen xajana kon mun taxaa doom jërëjëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm mu ne aji dem ji nag yàlla na ko yàlla jégal yàlla may ko yërmande yàlla nañ ko fekk na ca bokk koog moom ak képp ku ko jaale ak képp ku ko ñaalan mu nekk ah yokk ñaan rek de waaye xam nañ ne moom ñaanam nangu na parce ndaxte alquran moo fi nekk ba léegi ndax jaara jàng na le bët ba sañ ñi jàng alquran yaaka kon yaakaar na ne alquran fi la dëkk ndax yaakaar na ne kon alquran fi la dëkk te borom loolu la bëggoon kat te te am na ko kon nag sant yàlla rek moo war mu ne sant nañ gan ñi sant nañ dëkkandoor yi sant nañ jigéen ñi sant nañ mag ñi sant nañ ndaw ñi hmm. yàlla na yàlla fay leen salaamaaleykum wa rahmatullah واغفر له